voilà ñu daal di ñëw ah daal di ànd ak Aliou Sow ci biir actualité waaye laata loolu dañuy daal di dalal rek ah, suñu suñu gazelle bi mais du gazelle oryx nag. <laughs> jar naa ah, préciser du bokk ci oryx yi. <laughs> vraiment Fatou Salma. Uh-huh. maa ngi lay fay madame Guèye. Uh-huh. Euh, namoon naa la di nuyu Aliou Sow Mounas Maku ainsi que fidèles téléspectateurs yi. d' accord nañ la bu baax a baax. Uh-huh. oui Mounas nee na la. welcome welcome. baby. welcome baby. <laughs> I love you. I Ah, <laughs> léegi. non il faut mu mëtal français bi d'abord. <laughs> no non mokkal na français ñu ngi ci anglais bàyyi jàmm. laay ak kii waxuma sama benn <laughs> ñoom ñaar Charles après nga réglé contentieux bii nii Aliou Sow ak Mounas parce que il faut ma xam lu ñu jote daal mi ngi noonu donc ci kanam tuuti dinañ ànd ak Salma Ibrahima Fall. ci biir rubrique people. léegi ñu daal di ñëw dugg ci actualité sopp la quotidien Walf Quotidien bu baax bi. tey jox ma Mounas jox commencé tiga de. commencé tiga maa fi génne woon ligne boo ku fi wax ci ligne boo dig ma tooñ. waaw te tey boo moytuwul ay côté de mise à pied ku fi wax ci ligne boo rek ligne boo maa ko moom. maa fi waxoon alliance li ligne kon nañ bàyyi ligne boo may wax mag ji pro. moi c'est fait les bas parce que mag ji pro man maa ko. moi c'est fait les bas mais toi c'est pas fait mais moi c'est quoi. xaw ma. léegi dama xatal bu léegi. xool waaw hmm? jàkkaarloo chat gi internet yi internet yi ko daal mooy sa ndaar bi. waa Facebook bi ñu ngi wax nee nga répété ñu ngi nii di ko laaj nga répété. li nga wax léegi moi c'est fait les bancs. waaw waaw mais toi tu n'es pas c'est fait les bancs. waaw ah. <laughs> jàmm seen juróom. Ah. Ah, loolu leer na amul lu ñu si expliqué comprendre nañ li mun wax. vraiment merci beaucoup Makhou. ayca kon léegi. léegi léegi ñu fee les bancs ci Walf Quotidien gi nii ah. ñoom <laughs> li nga xam ne ko ci seen une de suffrage qui brouille les cartes alors hmm, euh, ñu daal di natal nataalu président Macky mm-hmm. ak Idrissa Seck nitu euh, la à la ils ont fait les bancs mm-hmm. waaw ils ont bien fait les bancs effectivement j'avais envie de féliciter Seyni Diop aujourd'hui mm-hmm. ci taxam bi mu def Fatou titre bi mhm. titre bi c'est hyper important ces détournements de suffrage qui brouillent les cartes maanaam c'est c'est un super bon résumé man mhm. man man lii laa bëgg ci ci ci kii je pourquoi mhm. lii ni nga wax ci olof ces détournements de suffrage maanaam maanaam maanaam maanaam vote sénégalais yi tey jii nii moom la moom moom moom la homme politique yi en en sa tête le président de la République moom la ñu détourné ok xam nga élection présidentielle bu amee dañu teg ñu ne ñii ñoom maxu la ñu bëgg ñu jiite. Mhm. ñii ñoom salma bëggatuñu ñu jiite. pendant diiru sàngam ñoom maxu munaas et cetera ñoom la ñu choisir pour ñu nekk ci nguur gi pour ñu téye suñu destin. Mhm. pendant benn diir. quatre ans sept ans cinq ans mooy mandat bi mooy diir boobu lañ ko jox wóolu ko parce que dafa am. lu ñu gis ci moom ba kóolut benn euh, niveau de kóolute bu ñuy permettre ñu choisir ko moom ñoom maxu waaye ñoom Salma bëgguñu leen te bëggatuñu leen. surtout ci programme. ak sax ci gis-gis ñi en tout cas ci diir sàngam bëggatu leen bëggatuñu leen. Mhm. waaye homme politique yi dañuy voté dama bëgg ngeen bàyyi xel bu baax ci ñoom. bravo ah Seyni Diop waaye ci élection. am ñu ne ah diw lañu ñu choisir diw boobu dañ ko choisir pour benn diir je répète pour qu'on comprenne mm-hmm. waaye diir boobu ñu la choisir dafa dañu yaakaar ci yow pour am ngëneel ci réew mi parce que yow la ñu choisir ndax ñii ñoom Salma choisir lu ñu leen élection am loolu am nga nekk ci nguur gi di dérouler yegg goo sax ci benn ci benn euh, euh, ci benn temps ci sa mandat ngay door rek comme le cas de Macky Sall nga dem jëli ñeneen ñi nga xam ne sénégalais yi dañ leen rejeté woon bëgguñu leen woon un an et demi nga rejeté leen am ñoo xam ne sax ñëw nañu avant ay ñoom Samuel Sarr ñoom euh, ñoom Ousmane Ngom yaa ngi fàttaliku Ousmane Ngom mi ngi koy jëli ca ca Kolda bu koy waa CREI di woo mu ne du ñëw ñu jël ko hélicoptère takk loxo takk tànk indi ko par force kooku x même pas dans l'immédiateté dans les temps qui ont suivi assez rapidement moom la la jël ñëw dugg dugg dugg biir biir biir APR ànd ak ànd ak ànd ak ak Macky Sall ana daal di xëddeen léegi question bi mooy ci texte bii nii dama ci am lu ma ci xalaat dama ne est-ce que véritablement élection am na njëriñ mhm. parce que finalement est-ce que lu tubaab bi di wax c'est que du blabla mhm. loolu mooy élection en général élection en Afrique mhm. même au Sénégal en particulier parce que finalement Fat bu fekkee nañu def ay élection am ñoo xam ne peuple bi daf leen daf leen daf leen daf leen goqi du noonu mhm. waaw pour que après ñu dellu si waat finalement élection amatul njëriñ yàq xaalis la et c'est une perte de temps et puis et puis même de, de, concentration par rapport aux priorités du pays mhm. ndax nag xoolal le cas du président Macky Sall Macky Sall dafa am ñoo xam ne dañ ne bëggatuñ leen am ñoo xam ne sénégalais ne dans leur majorité Macky Sall la ñu bëgg ak ñi mu àndal tey Macky Sall moom ak ñi mu àndal genn wàll gi ñi mu àndaloon yëpp dàq na leen ñoo ñu amatuñu importance ci Macky Sall finalement ñi nga xam ne moom la sénégalais yi rejeté woon ñoom la Macky Sall indiwaat teg leen ci nguur gi. kon élection amul njëriñ on perd de l'argent on perd du temps et on manque de concentration par rapport aux priorités euh, Fatou du pays donc je crois des fois bu may wax yenn saa yi que mandat limitation ay mandat ak yooyu sax yooyu amul importance. Mhm. et que man maa ngi je vais beaucoup plus loin ci benn idée mooy que ñu jël un certain nombre de temps concentré wu sur les priorités du pays xool exactement fan la ñu war a reyantee juboo déggoo kat ci kàddu am benn ak unique euh, objectif dans ce pays mooy fexe ba ba ba suqali réew mi. Mhm. waaye bu boobaa day fekk ñun ñu bëgg suñu réew mais finalement. loolu bokkul ak ñi lii Macky Sall def en ce moment ak certains opposants yi nga xam ne ils étaient farouchement opposés au président Macky Sall pourtant tey ak ñi si dee ay ñoom Mamadou Diop machin beaucoup de gens euh, le garçon de Sangalkam le policier Fodé aussi ah voilà ils ont fait beaucoup d'efforts pour ce pays xeex reyante. yi rek fële euh, euh, euh, Tamba la je pense Kolda Kolda. mais oui ak ak pur ak ak ak ñoom kii Issa sa gars yi nga xam ne ñu reyante foofu. parce que à tort ou à raison parce que dañu xalaat ni ñoom dëkk bi dañ ko war a changer. parce que dañu sol manifestation yi góor gi dee naa suul leen ko machin lu nekk déggoon nga ko fi. Mm. ñooñu tey la Macky Sall en grande partie jël. teg leen ci nguurom est-ce que vous pourriez imaginer quelqu'un comme Oumar Sarr tey mine euh, ministère des mines. bu Sénégal. Oumar Sarr di côté téye. te du ministère du Como aussi. te du ministère du Como lu toll ni alors que constitution bi dafa ne les ressources du du pays appartiennent au peuple sénégalais. Macky Sall jiite peuple sénégalais dem jël koo xam ne. pour mu jiite pour mu pour mu organiser gestion wu ressources yooyu koo xam ne moom daf ko bañoon koo xam ne peuple bi bëgguñu ko woon koo xam ne moom ci boppam moom ci boppam moom mu jël ko teg ko fa moom bëggul woon Macky Sall nekk président de la République contradiction yooyu noo fexe ba mu avancer réew parce que il faut être conséquent et et et, méthodique dans sa manière de fair tant que vous manquez de méthode d'organisation et de concentration par rapport ak li nga xam ne moom moo la taxoon a jóg ca njëlbeen loolu bu fekkee ne da ko détourné forcément defal lu neex maxu mais dëkk bi mënoo ko doxal. parce que xam nga lu tax parce que c'est des intérêts ou ce sont des intérêts divergents parce que bokku leen intérêt je vous assure d'une chose Oumar Sarr mënul bokk intérêt ak Macky Sall. mais ce n'est pas possible pour confirmer li ngay wax nii Omar Sarr ci benn sortie bu mu def mhm. nee na objectif am ambition am mooy euh, candidat ci élection présidentielle waaw kon Omar Sarr xam ngeen ni kon dafa ñëw ci pour se remettre euh, euh, financièrement dans certaines conditions qui puissent lui lui permettre effectivement de s'organiser pour les prochaines élections présidentielles kon ça dire que finalement on se rend bien compte que gars yi dañuy saax saaxee suñu réew mi dañ koy séddoo affaire de pàccoo la affaire de je je par-ci et tu me retiens par-là je te Omar Sarr mais yaa ngi ni imaginer Omar Sarr bokkoon na ci vingt cinq nit ñi nga xam ne CREI bi nga xam ne tey Antoine Diome moo ko moo hmm. moom Omar Sarr bokkoon na ci CREI yooyu ñi vingt cinq nit yooyu xam ne moom la ñu waroon ñoom la ñu waroon téye est-ce que Samuel Sarr bokk ci woon hmm. tey moom se allers-retours ses entrées et ses sorties au niveau du palais Samuel Sarr mi nga xam ne je rappelle au Sénégal bëggul Macky Sall àndul woon ak la majorité des sénégalais par rapport ak décision bi ñu jël teg Macky Sall président de la république. Mm-hmm. Ousmane Ngom pareil entre autres les autres qui sont des caciques de l'ancien euh, euh, de, de, de, de des anciens libéraux yoo xam ne ñu dellu soit ñoom ñëpp daw laa ko ci ginnaaw Macky Sall. les Souleymane Ndéné ni Souleymane Ndéné Ndiaye. Mm-hmm. qui avait dit que il n'allait jamais jamais jamais jamais dem ci ginnaaw Macky parce que jaralu ko ndax Ablaye Wade moo ko gënal. Mm-hmm. adduna ak alaxira Pape Samba Pape Samba bu mu ne mu ne moom bu ko Ablaye Wade waxee non ça bi bii moom bi bi bi mooy terminus. mooy last bi. mu ne moom bu ko bu ko Ablaye Wade waxee moom ak jabaram ñu taxaw place de l'indépendance taal seen bopp sotti seen bopp pétrole taal ko moom dina ko def moom Pape Samba Mboup Farba Senghor pour couronner le tout ana lu ñuy yàqul Macky Sall waaye mere Karim Wade war na mën a tax. ñu trahir Ablaye Wade Babacar Gueye entre autres ñoom ñëpp ma Ablaye Wade leen jëndal ay kër ay cent la leen doon jox ku ko di ñëwal cent millions cash ne kër yow diw am nga kër ah maa ngi dëkk ba rek Saalum ah déet waaye yooyu ah demal kaay Sissoko oui. il faut dire que Abdoulaye Wade moo leen créé. kaay mu ñëw mu dee ko mu dem mu yóbbu mu yóbbu ak saagam dem jëndi kër cash. wedd leen ko. jox leen yéen ñooñu tey yaa leen trahir Abdoulaye Wade. loolu nit ñu mel noonu mënoo leen jiit teg yow Macky Sall président de la République nga teg leen pour ñu jiite réew ñooñu ñuy liggéey liggéey bu baax. Mhm. parce que d'abord ce sont des gens qui sont incapables parce que ils ont assumé et assuré leur responsabilité euh, ci bi ñu nekkee ci biir nguurum Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade lu nekk defal na leen ko waaye nguuru Abdoulaye Wade bu daanoo yéen ñii ñoo leen tax. Mhm. je ne suis d'aucun bord politique je réfléchis tout simplement et j'essaie d'analyser vos attitudes pour wan Sénégalais yi yéen nan ngeen mel et que yéen n'êtes pas capable yéen euh, avancer loo réew mi kon Macky Sall bu leen jëlee teg leen ci wetam ce n'est pas parce que dafa yaakaar ci yéen nii mu ngeen avancer réew mi mais c'est peut-être pour d'autres calculs calculs yooyu mooy lan est-ce que du pour neutraliser leen. est-ce que du pour après bu fekkee dafa am ay ambition future après 2024 jëneen ci ci ci ci ci ci ci ci groupe ci ci grand mouvement qui est en train d'être préparé pour que après mu continuer mën di fi toog. ndax yéen sonn ngeen amu leen jëm. mënatu leen toog ci Ablaye Wade wala ci euh, ancien euh, ñi doon ànd ak Ablaye Wade ce n'est plus possible donc benn solution kese ngeen am moom ngeen ranger pour ñu jox leen salaire def leen ay PCA jox leen ay poste de direction téye leen nga xam ne boo leen toogee foofu ba Macky Sall di waaj pare mandaam lépp lu mu décider éventuellement di ngeen ci mën a ànd ak moom parce que fekk boobu fekk na yéen soobu ngeen ba tooy xepp mm-hmm. parce que vous n'auriez plus le choix. Mm, seen una moo tax amaana duñ ci yàgg mhm. mooy euh, euh, liste des ex combattants ñoom ne nañ de 2012 à nos jours Chompal se promène au sein de l'opposition avec un bâton et une carotte pour réduire au silence ses adversaires <laughs> et, ses adversaires yooyu noonu euh, cité nañ leen muy ñi nga xamante moo di ñi nga doon wax léegi maître Ousmane Ngom Samuel Sarr Souleymane Ndéné Ndiaye Aïssata Tall Sall Omar Sarr Aïssata Tall Sall Idrissa Seck Aïssata Tall woo ko Aïssata Tall déjà rek li mu li mu njëkk bañal li mu njëkk bañal Tanor feu Ousmane Tanor Dieng li tax mu génn parti socialiste mooy li Tanor ànd ak Macky Sall Tanor dee na Aïssata Tall Aïssata Tall dellu na ci Macky Sall li mu doon bañal Tanor Dieng patron am Tanor bi nga xam ne moom moo tax Aïssata Tall Sall ñu xam ko Aïssata Tall Sall euh, jëkkëram mooy doomu ancien ministre Abdoulaye Wade xaw ma nu mu tuddati woon xaw ma lan Sall ancien ministre euh, euh, Abdou Diouf brillante et jeune avocate ñu ne ko kaay comme parti socialiste amuñu jigéen elle est mignonne et cetera tout ce que vous voulez kaay ñu indi ko fii mu teg ko fi mu ñëw mu ñëw Ousmane Tanor Dieng jiital ko ci kanamu ñëpp jiital ko laa wax ci kanamu ñëpp Aminata Mbengue Ndiaye yaa ngi may dégg. Mhm. yaa ko fa jiitoon foofu. six mois la def parti socialiste ñu def ko ministre de la république mu topp ci ginnaaw Tanor un jour Tanor ne moom gis na ni Macky Sall la war a àndal Aïssata Tall àndu ci. moom ak Khalifa Sall. ñu dem mu créer son mouvement tuddee ko oser l'avenir mais boobu ndekete oser l'avenir c'était pas avec le peuple sénégalais. Mm-hmm. mais c'était avec Macky Sall. elle était dans ses calculs. Macky Sall ne ko yow comme déggaloo ma Podor comme déggaloo ki nga xam ne man la àndal Ousmane Tanor Dieng dinaa la yóbbul Racine si Racine si boobu dina la xeex ba nangu Podor. comme ça boo nekkatul maire dootoo vous allez être inexistante en politique yaa ngeen doon dégg bi ñuy wax ay 6 voix ak 18 voix ak di ko xëccoo. ba finalement ñu bàyyi ko may ko may ko may ko may ko affier en mu respirer xam ni fi mu toog ay risque la risque boobu la calculer après def ses calculs avec son oser l'avenir pour retourner immédiatement ci Macky Sall parce que xam na ni bu continuer nii day perte maire maire mm-hmm. mu jege Macky Sall Macky Sall jox ko lii tey mu ko jox boo xam ne Macky Sall keneen la ko sóoraale woon xam naa ko waaye duma ko wax. Hmm, doo ñu si wax. non non mooy ministère des affaires étrangères. waaw keneen keneen keneen lañ ko doon jox. ok ci ci ñu ñu dàq ñi. Hmm, d' accord donc il s' est passé quelque chose daal. yaa ngi dégg donc Aïssata Tall boobu tey jii moom ak li mu yàq Macky Sall moom tamit moom moo retourné xam nga aussi boo gisee may wax li c' est parce que dama aussi xam. gars yi ku nekk sa comportement say attitude ñooñu bugguñu woon Macky Sall ñooñu bugguñu woon Macky Sall parce que dañ ko xeeb Moussa Niass en premier moom moo ko njëkkoon moo moom feu Ousmane Tanor Dieng yàlla na ko yàlla yërëm ñoom bugguñu woon Macky Sall dañ ko xeeboon parce que kii xale la xamul dara bërki dem la juddu warul sax naan dafiy nekk candidat à la candidature au sein de Benno Siggil Sénégal bu dee lu dëgg wax leen moo ko ñëw leen Sénégal di ñu seetaan yéen mosu leen woon bëgg Macky Sall nekk candidat à la candidature pour am candidat Benno Siggil Sénégal da ngeen bëggoon rek entre kanoor ak Moustapha Niass. ñu mhm. jéem a seet moo ci remplacer Ablaye Wade. boobu yéen fàtte ngeen ni yàlla moo am. Mhm. te yàlla décidé na bu yàgg. Mhm. tey jii nii ñoom ñëpp ñu ngi ci ginnaawam Macky Sall yor bâton comme ni ko suuf saa waxee bravo la Thiam. yor yor yor euh, carotte. ak ak ak ak ak ak ak yaram. Mhm. da ngay ñëw ma jox la nga lekk boo dëgëree ma maa sama yaram. Mhm. ñoo ñëpp ni nekk ci ginnaaw Macky Sall loolu c' est inconcevable pour pour dire en tout. Mhm. et pour tout. Euh, Fatou Ka que des fois élection est ce que jar na ko franchement dans un pays comme le Sénégal. est ce que dëgg-dëgg du ñu réunir autour de l' intérêt commun intérêt commun d' à commencer par le patriotisme la générosité bëgg sa réew jog rek pour liggéeyal réew bi mais ñu arrêté concentré wu pendant dix ans parce que finalement ça sert à rien wala bokk ñu jëm ko seet nu ñu joxe opposition bi radicale bi le pouvoir ba nga xam ne au moins ñooñu bu ñu ñëwee xañ na dina fekk ñu encadrer leen defaraat institution yi ba nga xam ne un président de la république un prochain président de la république du mel ni comme Macky Sall. du mel ni comme Abdoulaye Wade du mel ni comme Abdou Diouf te du mel ni comme Senghor. ndax bu ñu defaroon constitution bi normalement Senghor du tëj Mamadou Dia. Abdou Diouf du toroxal Abdoulaye Wade. Mhm. alors du toroxal Idrissa Seck. Mhm. Macky Sall du toroxal. Khalifa Sall kon il faut ñu changer institution yi d' abord teg fi une beneen président de la république président warul di nommer à tous les emplois civils et militaires wala bu ko naree def il faut qu'il y ait une majorité de l' assemblée nationale boo xam ne dafay euh, euh, euh, comment dire. dafay dafay dafay apposer sa signature son aval. Mhm. pour nangu li président bi décidé. mais mu bañ a nekk une majorité mécanique. mais mais que ça soit cette assemblée nationale mu doon beneen assemblée nationale beneen mhm. forme assemblée nationale boo xam ne du ñu ne assemblée bi man man man man député Macky laa mhm. parce que bu boobaa dañuy diviser Sénégal. bu fekkee ne 160 députés la soxla ñu diviser Sénégal en 160 euh, circonscriptions nga xam ne yow maxu yow yow yow munaas circonscription boobu ci benn ci 160 yi yow bu la neexee nga

ay de vrais député du peuple la ñu soxla mais Lune Bo li gën a grave ci loolu yëpp mooy. ki nee na bul wax Lune Bo dama dama ju mag ji pro Aliou Sow. li gën a li gën a grave ci loolu yëpp mooy du ma tere du ma tere du ma tere alors euh, sopp ci moment bi nga xamante ñoom ñu ngi paajoo euh, alalu réew mi. ku mhm. nekk di jéem a def say calcul. Mhm. ci moment boobu xale yi ñu ngi euh, jeexan ah, ci li nga xamante moo di géej gépp bi ci gën a métti mooy bi mujj rek bokki de Mbow Ndiaye moom la libération def ci seen une. alors papa m'a sacrifié moom mi nga xamante ne moo di Doudou nekkoon xale bu am 14 ans papam paasal ko dugal ko ci gaal yi mu dem Oui, Jean Baquet, je suis d'accord hein. Bravo c'est bien. papa mal sacrifié, choquant, ça donner envie aux Sénégalais de se méfier par rapport à leurs enfants yi nga xam ne ñoom ñooy dem ci océan bi et qui se font manger par cet Atlantique là. D'accord na, bu la neexee. Mais il faut pas que s'en arrêter là, Cheikh Mbacké Il faut que nga def leneen aussi. Il faut que nga ne aussi d'autres enfants sont sacrifiés alors que kenn yóbbuwu leen ci géej gi. Ñi ngi sànni seen seen doom ci ci ci ci daara yi nga xam ne ñi ngi seen doom yi fii ci diggu croisement Castor, ñi ngi enfants ont été sacrifiés par leurs parents. Il faudrait dire ça. C'est pas parce que pour pour choquer émotionnellement les Sénégalais ñu ne oui comme ça euh, kenn dootul yóbbu ci doomam bitim réew kenn dootul jaaral ci doomam ci ci ci ci euh, ci Barça euh, ci pour pour ñu Espagne parce que am na ñoo xam ne jaar nañ ci géej gi yegg nañ Espagne. booy wax leen loolu aussi pourquoi vous ne le dites pas. ah y a plus de 1700 personnes yoo xam am ñoo xam ne leen këyit mm-hmm. boo leen demee son papa l'a sacrifié oui mais d'autres papas ont sacrifié d'autres enfants ci suufu pont yi. demal Kastoor ca Mbacke gisee. demal demal ginnaaw raay demal ci ci mbaax bàjju naar yi nga gis xale ni ñuy taxawaaloo foofu demal Pikine nga xool ces enfants là qui ne servent à rien qui ne sont pas à l'école qui n'ont rien du tout. parce que ci benn néeg la ñu dëkk gën leen dem fooyi parce que néeg dafa xat ndax dafa tàng de toute façon papa là il est parti pour jéem a lijjanti weer bi dee na parce que dafa war a fay cinquante mille francs loyer il faut ils sont ñooñu aussi leurs parents les ont sacrifiés alors ne dites pas juste on sacrifie un enfant parce qu'on le met dans le ventre de l'Atlantique ce n'est pas vrai on sacrifie ses enfants aussi ñiy sacrifier seen doomi fii euh, il s'appelle Doudou mais Doudou am na ñaata Doudou ñoo fa am ak Mamadou ak Ibrahima ak euh, euh, di nga ma am Ndeye Fatou ñoo xam ne dañ leen di sacrifier sànni leen ci àll bi faale wuñu leen dañ leen di jur sànni leen ci mbedd yi ñooñ ñooñ ñooñ ñooñ kenn sacrifié wu leen pourquoi vous en parlez pas ñooñu ñoo ëpp fuuf Doudou mi sacrifier peuple bi. mais les gouvernements qui sacrifient les pays mais à, euh, à la mais xam nga il faut qu'on arrête cette hypocrisie là ceux qui partent à l'étranger dañuy dem parce que dañuy sonn parce que lekk ñu mais mais xam nga man je xaw ma gaal. Mm-hmm. je connais l'Europe je connais le monde ñi fi dem ci àdduna bi lu bari j'ai beaucoup voyagé xam naa àdduna bi yépp cinq continents yépp dem naa fa dama ne ñun dañu am chance. waaye man je me mets à la place de ces gens-là qui sont fatigués man su ma nekkoon situation boobu nan laay def mm-hmm. est-ce que man man dama yaakaar dinaa dem parce que xam lu tax parce que am naa jom boo xam ne parce que am naa lu may bañ loo xam ne il faut ma dem reyante pour dundal sama njaboot wala dundal sama yaay bi nga xam ne amul fu mu dëkk wala amul lu ma ko jox mu lekk mm-hmm. du ma ko seetaan dinaa dem parce que je ne refuse parce que dee naa ba pare mm-hmm. dee naa rey ngeen ma ba pare ngeen bu ma dem bàyyi leen ma ma réer ci géej gi que man que may toog ngeen may suul ci biir kër gi ci ñëpp di ma xool ba pare boo leen ñëwee jëlal ma ay nag euh, euh, jëlal ak ak ay euh, xaw ma lan ay dugub pour pour pour ñu jaale ma jox ma ay nak mu jeex ngeen jàll ci leneen. Mm-hmm. je ne suis pas d'accord avec ça. ce que vous devez faire question yi mooy lan comment faire pour trouver une solution à cette immigration la regardez ce que disent Sud Quotidien Fatou xool leen lu ñu li nga xam def nañ ko. Sud Quotidien xool leen wax tey jii ok politique à coup de milliards résultat ainsi. ñaata milliards la leen tubaab yi jox est-ce que an am na transparence ci xaalis boobu ñuy dugal ci réew mi pour lutter contre l'immigration xaalis boobu boo leen ko jëloon gone yi ngeen di gis fii yëpp ci Seydina Limamou Laye bekk angalu Kastoor bi ñuy jaay darkase di jaay machin di jaay ay effets chinois ay produits chinois di ko jaay yu gorgor yooyu lan moo tax ñu koy def. mais parce que ñu am jom ñooñu ñoo ñooñu ak xoolal seen kattan ku leen joxoon tracteur organise leen sous forme de coopérative mais mais <laughs> leer na Serigne Touba mais euh, moi moi j'ai la solution. solution bi xale yi lii lii taxul ñu toog. il war a trouver terrain d'entente boo xam ni. Hmm. mooy tax jeunes yi toog. maxu ay entreprise yu ñuy liggéeyee. mais lii instant bi c'est pas le moment nii laa. munaas du heure bii parce que li nekk seen bopp dafa bari. munaas non mais si quand même. xoolal dem. non non xoolal dañuy parce que xamuñu tax. alors euh, alors mu ngi noonu en tout cas alors waxtu bi daf nañu euh, Mounas Aliou Sow am na amaana tamit li mu nekk xale moo tax mu attiré attention yu bëri parce que ay mag lañ daan gis ñuy dem mosuñoo gis boo waaju boo xamante ne jël nga jël sa doom bu am 14 ans bàyyi ko noonu mu dem sa que même mag ñi ñuy dem xamuñu géej waxtuma la xale boo xamante ne am na waaye xale bi taxawaalu 12 ans yéen ngeen ça ça nous choque tous les jours en tout euh, bi war nañ mën a jukk ci ci waa dëgg la mooy xa gu nekk gu nekk lébu yi. cousin lam day dem géej di liggéey di ñëw. ñu ngi leen di jaajëfal ñu ngi si mbedd bi xale bu ay duuru ñu ngi si mbedd bi chaque jour. Euh, def tànku neen yor benn pot ay Aliou on te donne rendez ak ay Aliou ëllëg incha allah. waaw <laughs>